ayca mi ngi noonu ah euh, seen seen dose matinale moom tamit mi ngi nii ci ci ci plateau bi Sow Poulo nuyu nañ la. est-ce que est ma mystiquement tamit bëgg yàq sama digganteeg yow mën na nekk de. waaw. diwoo doomu <laughs> ah, di leen jomba ah, <laughs> je suis très content uh-huh. sur ce plateau naturellement avec mes sœurs et mes frères. Uh-huh. qui sont là en l'occurrence Awa et naturellement euh, Awa ma fifille bien évidemment. Uh-huh. et la sister Thioro Mahou Mandela. naturellement la grande présentatrice euh, pour qui j'ai de plus en plus de l'admiration parce que man dama kuy taqe di taqe di taqe di taqe di taqe di taqe. <laughs> yàlla sa jaamu yaaga donc <laughs> ñun tamit amati nañ ko nga daal di ñëwaat ci euh, plateau bi si jàmm ak salaam Aliou Sow donc comme d'habitude ah actualité yi Walf Quotidien lañ koy dooree ah. li nga xamante ñoom biral nañ ko tey ci seen euh, une Daliou Ndao à Ngor Diop la longue liste des magistrats décapités. magistrat yi nga xamante ne ndeysaan dañuy jékki rek daal di leen mm, mi mi ngi wax rek ni ni ni comment comment justement euh, euh, la justice sénégalaise est menée à la à la baguette. Mm. par justement donc euh, le pouvoir exécutif sénégalais. Mm-hmm. Euh, loolu mooy wax ni véritablement encore une fois comme j'ai tendance à le déplorer que a euh, il n'y a aucunement de séparation des pouvoirs. Mm-hmm. encore moins une séparation rigide donc ça veut dire que institution yi comme ni ma koy waxee encore une fois on me rejoint. bravo ah Walfadjri ah mais mais euh, euh, du du dara mais nag ñoom tax nañ la. bu baax waaw ils sont ils sont bons ni ñuy enchaîner ay ay kii xoolal ma ce qui ce qu'ils ont ils ont dit aujourd'hui mm-hmm. et et et c'est totalement lié parce que ñu ngi wax. véritablement lan mooy problème mu euh, démocratie au Sénégal te démocratie bu amee ay difficultés dëkk du avancer mm-hmm. et et et naturellement surtout pilier un des piliers de la démocratie c'est la justice justice bu amul liberté amul indépendance ça veut dire que ça pose un problème donc encore une fois bravo Walf Walf Quotidien mm. xoolal ça a été cité au moins euh, sept ou huit huit juges mm. ou magistrats mm. qui qui qui ont été virés wala ay procureurs yoo xam ne dañ leen dàq parce que tout simplement dañu ne ñoom duñu déglu pouvoir exécutif bi mais en même temps ñoom aussi amuñu droit bañ a déglu pouvoir exécutif bi même si c'est injuste si je puis dire amuñu droit bañ a déglu pouvoir exécutif bi parce que ni architecture euh, euh, kiiwu euh, constitutionnel Sénégal taxawee forcément il faut évidemment dire et l'avouer que ni le pouvoir exécutif est au-dessus du pouvoir et législatif et du pouvoir judiciaire ñoom ñoo nekk ci kaw parce que niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko bindee la dañu ne euh, euh, euh, pouvoir exécutif bi pouvoir évidemment on parle de séparation des pouvoirs que pouvoir législatif am na indépendance am pouvoir exécutif bi naturellement et puis le pouvoir judiciaire am indépendance mais en réalité ce n'est pas vrai parce que fi ngay njëkk gisee ni amuñu pouvoir justice pour ce pour ce coup-ci pouvoir pouvoir euh, judiciaire amuñu indépendance moom mooy lépp luy organisation judiciaire bi euh, euh, pouvoir exécutif moo ko téye procureur yi Euh, euh, euh, pouvoir exécutif moo leen ministre ministre de tutelle ah le ministre de la justice qui est lui dépendant du président de la république kooku moom mooy wax magistrat bu nekk fan lañ lay affecté magistrat bu nekk nan ngay liggéey procureur yi nañ leen di nañ leen di tegee différents corps judiciaires yi nañ leen koy organisé organisation bi en général donc c'est le ministère de la justice qui gère tout ça en tout cas même bu ko géré wul directement moom mooy inspiré liggéey boobu pour que gars yi am nu ñuy doxalee kon forcément naturellement je dis bravo Walf Quotidien j'aimerais bien que ñun Sénégal yi dem dem lire ko tey dinañ comprendre pourquoi le pouvoir judiciaire au Sénégal n'est pas indépendant et est sous la tutelle ou sous la curatelle du du du pouvoir de du, du chef de l'exécutif naturellement le président Macky Sall qui a justement à sa charge le ministre de la Justice qui lui commande tout le pouvoir judiciaire donc forcément allez regarder cela et sachez que ni encore une fois ils ont raison Walf mm-hmm. Quotidien que ni wax dëgg yàlla ñii euh, euh, euh, moo tax ma ne il faut changer euh, les institutions de ce pays boo gisee may wax depuis 2007 il faut changer la constitution c'est parce que yu mel nii moom moo tax parce que moi une constitution avec une séparation rigide des pouvoirs mooy ku nekk da ngay def lu la da conformément aux textes et lois en vigueur mm-hmm. assemblée nationale dafay am une liberté jouer rôle am ñaari principaux rôle moom mooy di contrôler gouvernement bi ba pare di voter loi yi ba pare motion de censure bu problème amee d'accord ñu ak exécutif yi ñu poser une motion de censure mm. loolu bu amul mm. wax dëgg yàlla du mën a dem mm-hmm. donc euh, pour le pouvoir judiciaire aussi il faut que mu am une séparation déjà li ñu war a njëkk def mooy président de la république warul bokk euh, donc euh, ci conseil supérieur de la magistrature. te man Aliou Sow lii nii c'est vrai que war nañ jàll ci yeneen point mais man li ma ci gën a marqué. mooy mhm. ñoom ñëpp ku si nekk sa sa sa départ buñ la fay jëlee dafay am benn nit bu ko bu ko waral. Ah. bëgg nañ daaneel benn nit yow nga bañ koo def ñu jëlee la fa comme bu ñu jëlee jëlee le cas de Mahawa Semou Diouf ah. moo di Sidi Lamine moo tax ñu ko ca fa mu ca fa mu nekkoon dàq ko bu ñu jëlee aussi euh, Cheikh Diakhoumpa moom tamit euh, ba ngoom mhm. ay ñooñam ñoo doon jotee ak yeneen ñooñu maire bu euh, Matam Diaw mu xam ne Diaw moom moo am mhm. yoon mhm. mu war a appliquer la loi mais defuñu ko ñu daal di ko fa di ko fa jële mu mel ni daa mbirum par parloo yeex yooyu noonu de même que ki mujj ah moom nga xamante ni ab sëriñ la ñu wax ne moom la teg loxo ñu wax ko mu bàyyi ko mu bañ moom tamit ñu daal di ñu dàq ko dem yóbbu ko simple conseiller dàq ko donc yooyu noonu dafa war a nekk ay yëf yoo xamante dañ ci war a bàyyi xel parce que euh, nul n'est au-dessus de la loi ñun ñëpp ñoo yem na nga xamante noonu la ñu war a àttee alors ñu daal di jël euh, Sud Quotidien ah mhm, ñu waxtaanee ah li nga xamante ni euh, mooy déclaration de patrimoine bu président Macky Sall waxoon que mayoon na 45 jours ministre yi pour ñu def ko alors mhm. paradis fiscaux l'autre casse-tête de l'OFNAC mu mel ni bu weesoo déclaration de patrimoine paradis fiscaux yi ñi nga xam ne dañuy jël seen alal rawale ko ci yeneen euh, réew daal di ko fa denc. oui mais surtout à remarquer Fatou que ni 45 jours yi passé na. Hmm, waaye juróom la may gars yi pour ñu def loolu. Euh, waxoon naa leen euh, gars yi duñ ko def. Hmm. bu ñu nekkee jàkkaarloog Macky Sall ci conseil des ministres. dañ ko déglu religieusement respectueusement. Hmm. présidentiellement si je puis dire mais fa lañ yem bu ñu génnee dugg seeni oto dañuy xultu du ñu faale euh, Macky Sall te boo sàgganee sax bu ñu toogee ak seen jabar yi wala seen doom yi ñu wóolu ne leen waaye mais kii kii nit la waaw kii fan la toj kii nan ñu dañuy déclaration patrimoine moom jëkkawul joxe exemple ba pare nan ñu dañuy joxe déclaration patrimoine tout de suite bu téléphone bi sonné ah monsieur le président de la République wax nga dëgg kay yii kii loolu il faut mu am parce que wax dëgg yàlla moom dëgg dëgg moom il faut muy leer ndax transparence moom enjeu la pour une démocratie te wax dëgg yàlla sa liggéey rafet na torop bu raccroché ne ciy potuwaat ne kii bàyyi ko foofu rek xamul li xew sax continuer c'est comme ça qu'il fonctionne maintenant euh, la preuve xoolal fi mu fi mu mujjee on se rend bien compte que ni euh, euh, jours passé na déclaration de patrimoine certainement moitié ou les trois quarts de ceux qui doivent le faire defuñu ko ba tey et je crois que c'est dommage parce que <laughs> mais lu si gën a grave sax moom mooy ñi xam ne sax da ñu jot di def ay déclaration de patrimoine du ñu def lépp déclaration yëpp parce que du lépp la sénégalais yi wala wala wala wala moom OFNAC ak à sa tête Seynabou Ndiaye mënuñu ko contrôler parce que ñu ci bari seen i alal ak seen moyen dañ ci jënd ay bien bitim réew téye ko foofu wala bu ñu amee lu ñuy làq ñu làq foofu des fois comme ay diplomate lañu bu ñuy génn mën nañ yóbbu alal bu fekkee alal bu ñuy yóbbu la gis ngeen yaa ngi ko Farba Ngom une fois xaw ma ci aéroport bi ak ay ay valise xaalis bu baree baree baree bari euh, en euro xaw ma lan donc yooyu yëpp autant que ni des fois am na ñuy rëcc moom jàpp nañ ko keroog mais des ñoo xam dañ lay wax wax ñu ñu ci bari kenn du leen contrôler donc forcément dañuy yóbbu alal dañuy yóbbu aussi bu ñu demee foofu tamit dañuy am ay foofu te compte bancaire yi gars yi duñu leen ñeme laal parce que dañu naan ñi ay autorités sénégalaises lañ mm. seen compte yi c'est normal que ñoom xaalis donc du ñu vérifier vérifier bu du ñu gëstu gëstu bu sori ci seen alal yooyu ne c'est facile ay kër di jënd ay résidence foofu man je connais beaucoup de xam euh, yoo xam ne dañu am ay kër France dañu am ay kër ay Suisse mais pourtant kër yooyu dañ dañ dañ dañ ko jënd cash mm-hmm. c'est ça qui est man ma xam lan mooy jënd cash kër en Europe c'est hyper difficile pour nga jënd cash euro même ñi am xaalis sax des fois dañuy préférer leb banque bi di ko fay ñoom ndànk-ndànk parce que parce que système boobu moo gën a yomb mais ñoom dañuy ñëw indi alal bi des du cash la wala yooyu naan xam nga wala ñu jaar ci seen compte bancaire yi nga xam ne ay 500000 euros 1 million d'euros lañ fay rek ñëw jëndal la kër cash léegi nii nii nii nii pratiquement à 800 millions. loolu munu man pour man munul nekk une autorité sénégalaise amul droit di jënd ay këru si. xam nga damay wax loolu gis nga Coro. Mm-hmm. maa ngi ko doon wax une fois fii parce que des fois da ngay obligé joxe ay exemple man depuis depuis depuis depuis depuis depuis depuis quoi 98 mais dañ la mayoon ñaari at. pour nga pour nga pour nga commencer di fay di fay di fay kii bi di fay bor bi parce que le temps que nga noppalu comme ñu ngi la koy doog a def le temps nga respirer ñu may la 24 mois pour nga euh, fay sa commencer di fay say bor mm. depuis 98 euh, euh, da da man au crédit lyonnais pour pour pour pour pour jënd kër France mais kër bi doo ko moom mm. en fait en fait en fait da nga koy jënd ñoom dañ lay lebal yaay moom kër mais kër gi day nekk sous hypothèque mm. Euh, bon vingt cinq ans laa ko war a fay des na des na sept ans gis nga sept ans yi des nii su fekkee ni su fekkee ni terminé woo kër gi ñoom kër gi dañ koy jaay ñoom li li leen amee xaalis ñu ñu jël ko donc c'est très difficile da gën a motiver sax ngay gën a liggéey di ñafe weer bi di day fay te ay plus de pratiquement 2000 euros ngay fay par mois donc pour une maison boo xam ne pratiquement ça fait 600 600 mètres carrés c'est pas très nga nga lekk kër war koo fay parce que parce que parce que parce que il faut ngay nangu di ñafe sa live mais fële ñoom ñi autorités yi nga xam ne dañ nekk fii dañ dañ leen dañ koy waxaa ah, dañ koy wax eh, monsieur eh, sa collègue bi sa collègue sàng moom moom kër bi dañ la koy wax quoi mu wóor la nii cash la ñuy jëndee kër ay kër yoo xam ne 800 millions 1 milliard ngeen koy jëndee en au cœur de Paris xam nga ce n'est pas bon wala dans les grandes résidences nga ngi dégg ci quartier UPI ñu dem di jënd kër mais da naan mais ñi fan lañ jëlee xaalis bi fan lañ ñu ko te bu naa si tudd ay tur yoo xam ne si turu mais prête non non des seen jabar non turu jabar lañ koy def kon ñu am ñaar ko seen cousine jabar wala dem sax seen tur lay nekk man am na suñoo xam ne xam naa leen mais mais kër yi ñu yor mais je loolu mënoo ko liggéey awa c'est pas possible am liggéey yooyu il faut nga prouver ko mais ñoom autorité sénégalaise nan ay kër cash kër yoo xam ne da nga koy évaluer ay un million de dollars mais loolu mënul ko ay Canada ñu jënd foofu ay kër comment ils font lan lañu liggéey lan la ñu liggéey quoi ba am ay salaire normal ba ba jënd kër yooyu loolu ce n'est pas normal mm. te loolu dañ ko war di vérifier aussi mm. parce que loolu dafa am Europe bi yëpp gars yi jënd nañu ay kër foofu te kër yi cash lañ ko ko leb pendant ce temps xam ne vingt ans vingt cinq ans la ñuy ko continuer di ko fay pour mën ko moom dans vingt ans ou dans vingt cinq ans c'est mm. injuste je trouve juste parce que benn position de signature la ñu am seen réew sàcc nañu xaalisu réew mi jël nañ ko dem nañu jënd ay kër foofu ce n'est pas ce n'est c'est injuste te loolu waruñu parce que wu wuñu ko mérité ñëwuñu ci réew mi di liggéey wala ñu teg leen ci ay station pour ñu jël alal bi di ci def lu leen neex ba di am ay possibilité jënd ay kër di am ay milliards te milliards yooyu man man je bien quelqu'un qui am ay milliards faatu mm-hmm. mais parce que mais na ko liggéey quoi na ko liggéey fay say impôt jaarale affaire yoon dëkk bi xam ne yow mi am nga ay employé mais ñi jënd kër yëpp ban liggéey la liggéey Sénégal ce n'est pas on n'a pas le droit d'avoir cinq milliards dans un compte bancaire wala ci patrimoine juste parce que on a été une autorité publique parce que on a eu des responsabilités au sommet de l'État loolu du yoon mënul nekk quoi dafa mënul nekk. mun na nekk bu fekkee ne da nga da nga mën a fii nga jaar ci liggéey lii ak lii ak lii nga def employé lii nga fay lii nga fay ci ay impôt lii nga fay ci ay impôt sur le sur le sur la fortune impôt sur les sociétés yan société nga am. fan la ana trace bi trace société yi wan leen ñu ko ñu gis ñu xam yooyu mooy tax mooy mooy mooy rôle nag mais pourtant OFNAC il se day limité wu rek juste ci. li li liñ ko présenté. mais leneen li moom mënu ko dem vérifier parce que amul ay moyens pour vérifier ko ce n'est pas normal donc je pense que te xaalis boobu yëpp ngay gis noonu il faut que vous compreniez une chose cet argent là mais mais dafa am fu mu jógee mm-hmm. xaalis boobu dafa am feneen fu mu waroon dem dafa waroon dem ci population yi dafa waroon dem ci éducation bi dafa waroon dem ci santé bi mm-hmm. dafa waroon dem si ñuy feebar ñu mën leen fajee alal boobu mais ñoom ils ont préféré jël ko en fait vous savez quoi naa leen wax dara mm-hmm. gis nga dañuy wax ay esclavage ay tubaab yi dañuy jàpp ñooñu dañu dañu coloniser jël suñu alal bi yëpp mais mais mais d'accord mais ñoom sax ay tubaab lañu ñoom seen intérêt réew lañ doon défendre. seen intérêt xeet lañ doon défendre mais ñun ñun ñun ay sénégalais ñun ñooy def yooyu coxo. ñun si son sunu autorités yi ñooy jël alalu réew mi di ko dañ koy affaire wala bu dul sàcc ba wax la ban la ñu mën a am parce que jël loo moomul sàcc la. te te beneen bi mooy euh, comme ni nga ko waxee noonu tubaab yi ñoom. Euh, non seulement dañuy jàppale seen réew mm-hmm. Mm-hmm. mais dañuy fekkaat ñun ñi su nga xam ne suñu loxo jotu suñu gannaaw ñuy weñaat suñu loxo di jëlaat yóbbu seen dëkk pour gën a gën a dolli seen population euh, seeni bëgg-bëgg mm-hmm. ñun nag ñun ñi nga xam ne ñun ñoo matadi ñun ci suñu bopp ñuy nangu ñun di leen jox li nga xam ne nii moom lañu amakus néew di leen ko dolli ñoom ñuy gën a enrichir ñun ñuy gën a dellu ginnaaw te te coro moo wax la ma la benn affaire de parce que li may wax moom du dañ euh, yenn kër yi boo ko amee Europe en kër gi day mel ni moomuloo parce que entre la taxe foncière entre la taxe d'habitation taxe sur l'environnement poubelle et cetera contribution sociale généralisée gis nga taxe yooyu boo koy compter dina mën presque deux millions par mois ay 3000 euros day mel ni 3000 euros boo ko diviser par par 12 dina la jox presque yow oh presque boo sàgganee sax sa kër bi nga moom yow. ngay nangu 300000 300000 francs ngay fay par weer. ci kër goo xam ne da ko moom te c'est à vie. Mm-hmm. même bu de kër gi yaa ko moom. parce que taxe foncière mooy taxe mooy ki moom kër gi borom kër gi moo koy fay. ki ko moom tax taxe d'habitation moo mooy ki fa dëkk mooy fay kër gi. environnement bi mooy taxe yooyu nga xam ne pour pour pour taxe généralisée la pour ñi nga xam ne pour pour pour participer environnement bi defar tali yi defar garab yi et cetera et cetera parce que xaalis bi il faut nga am foo ko jëlee. yaa ngi dégg euh, yooyu yu demee noonu faisant sa fait que ni. loolu day leer da xam xaalis bi fi mu jóge da moom sa kër mais en fait ba ilaa yow mi din sa kër doo ko moom dañuy wax yaay propriété bi nii rek parce que am nga le droit d'usufruit mën nga ko utiliser nu la neexee mais en réalité moomuloo ko euh, moomuloo ko pratiquement parce que li tax moomuloo ko mooy da ngay continuer di fay ay taxes ba ngay dee fii boo amee kër jeex na doo fayati dara boo amee kër doo fay amul taxe ceci amul taxe la wala taxe a seen dundin ak seen dëkkuwaay mais malheureusement fii dañuy fayloo ay euh, ay intérêt euh, ay impôts yoo xamante ni duñ ko gis fenn day nax saa suñu ay loolu mooy lan bravo bravo et mais mais loolu mooy lan xam nga mooy lan mooy c'est que mooy li ma expliqué rek mooy euh, c'est parce que y a une partie de la fiscalité sénégal sénégalaise boo xam ne dafa nekk en en kii en loolu nu mu tudd en désuétude parce que tout simplement dafa ay complicité ay mauvaise complicité yoo xam ne dafa am par rapport à à une absence de transparence ci liggéey bi nga xam ne moom la fiscalité sénégal bi war def du duñ ko def tout simplement mais en même ñooñu bu ñu deful liggéey bi aussi ñoom impôts yeeg yi demee noonu une partie de la ñoom tam il faut ñu gis ci seen bopp yaa ngi dëgg dama la war a signaler pour nga fay évaluer naa yow coro sa bien yi li nga war a fay ci impôt 50 millions la man maay évaluer man maay xool man man xool muy nekk 50 millions euh, en vrai man ma évaluer ko à 10 millions yow 10 nga fay nga jox ma ko ma patron des impôts wala inspecteur des impôts bu ma ci amee cinquante cas yu mel noonu mais bu ma defee juróomi at mais dinaa bari xaalis trop. effectivement moo tax may may may. ma ñoom ay genre ay Mamour Diallo yooyu nga doon dégg. nii nii euh, i euh, euh, la am. Ah. te moom ko ba tey te ñu ngi ko ciy xaar ndax comme ni ma ko fi waxee woon rek. kuy mm. digle cangaay. 90 jours 90 jours la amoon pour sénégalais ah donc demain demain mm. incha allah. xam naa dañuy dinañ ñëw ci ki nga xamante mooy maître Moussa Moustapha Diop instant bii nii. waaw gars yi gars koy ñu ngi baax a baax. donc parce que waxkatu dëgg la parce que waxkatu dëgg la et wax na wax na waxu euh, troisième mandat bi gars ne ko bokkoo mais suba dinañ ci waxtaan incha allah incha allah ñoo far ñoo mais des fois trop vite ah. waaw waaw lu dafa neex te lu neex du hmm. euh, du doy xam naa est-ce que ci ñëw li mu bëggoon am na ko waaw benn instant actuellement. mu ngi koy am bu baax. Ah, ay jërëjëf léegi kon na la yàlla sàmm demee incha allah dinañ ci daal tamit na la yàlla sàmm Guèye Massouré Issa Dieye waaw am nga fi junni hmm. noonu. di nuyu maman Henriette <laughs> waaw depuis Alfortville ak la siste Néné Sow depuis Vitry sur Seine ak ñoom Awa sama siste yooyu noonu ñu ngi leen di nuyu.